expérience madame. c'est-à-dire li wóor mooy candidat maire de euh, euh, ma ne waxoon naa ko dama ciy dellu siwaat objectif bi nga xam ne moom moo nekk ci sama kanam mooy président de la république en deux mille vingt quatre nit nag yéeneem doxalinam la ca kanam li ma bëgg mooy ñu comprendre ne réew. il faut kenn ku nekk def ci loxoom pour yëf yi mën a sotti réew benn doomu aadama du ko sotti du ko soppi il faut une conjugaison